waaw mais mais parce que kanam. ci loolu dañuy wax. yàlla ñëw na ak i gaayam. Siteu ñëw na. ànd ak DC. ngay cey lamsa. waa Siteu mii tey lu mu sol nii. man de omix solom Siteu mii est-ce que gis nga Siteu li mu sol. dama gàtt lool. mais Siteu li mu sol kaay kaay kaay kaay Omix yaa ngi koy am ndeysaan Siteu ngoo nguy nuyoo yàlla ya, ngi nii. ci kanam. ci kanam tuuti. waaw ñu waxtaan. ci kanam ñu waxtaan. waaw. waaw loo sol nii tey. xaw ma lan la. xaw ma robb nga jiital teg ci jaget. waay Siteu waay. man daal Siteu Omix lu ko neex lay sol. Siteu daal yëgul fii métti. waaye nag Omix yaakaar naa am na loo xam dama koy wax pour ñi ñuy seetaan ñu bàyyi ci xel. sunu confrère sunu frère ñu koy wax ki nga xam ne moom mooy Thier bu ETDR Média ak suma benn jarbaat bu ñuy wax Habib nekk caméraman am dañuy Habib dañ ko yónni woon mu yoroon moto Thier fanaanoo ko comme ñoom ñaar ñooy ànd di liggéey ci ETD ci ETDR Média dëmb Thier bàyyee ko moto bi ne ko boo xëyee nga ñëw mu xëy moom euh, Habib moomu nijaayam hélas di caméraman di technicien bu mag a mag ñu xam ko yëkkati xaalis benn somme bu toll ci 1 million jox ko ko mu def ko ci moto bi mu am kooku koy joxloo e DK Pikine bi mu ñëwee nag ba ci padduwaa bi ñu agressé ko foofu dóor booy bay jaasi mu daanu ñu nangu moto bi yóbbu moto bi yóbbu 1 million yi yóbbu caméra 5D bi loolu dal na li nga xam ne nii moom mooy presse bi kon dañ koy wax pour ñëpp dégg ko waa gendarmerie ñu ngi ñuy dégg waa police ñu mu ñuy dégg ñu ngi ko agressé fi nga xam ne nii moom moo di padduwaa loolu la ma ki nga xam ne nii mom Modi di ceer euh, wax ya ngi deg nangu moto bi mu joxot bi Habib yore won jël ci mom 1 million yu mu ci moto bi ak kamera caméra 5D kon loolu yakarna lu ñaaw la kon encore une fois rek sa yu nit ñi joggé ta bobu bi loolu am lamba amul bi ñuy def loolu kon loolu mo lay wan nit ñi nga xamné mom lu bon lañuy def bu nit ñi joggé ngir def lu baax ñom ñu ngi planifier pour def lu ñaaw kon yakarna nak nag loolu incha allah def loolu xamal na force de sécurité yi te ci réew mi dañuy liggéey de te xarañ nañu de te wallaay ku bëgg a def ak jubadi mën nga koo commencé de waaye est-ce que ko yeggali noo doo ko yeggali